السلام عليكم سونا سي عليكم السلام بالي نيغي فتال ني توربي اك سانتو بي مان ماغي تود ندي خدي سال ا خدي سال نداخ مونا نيو خام لي لما ورال سا تيواي بي في اه جو لا من شتا درجي بسم الله الرحمن الرحيم مان سما تيواي بي في دال موي دابا ام بروبليم باسكو دابا جند كير ديبي 2004 ba ma bi ma jëndee kër gi ba ma am foofu dix ans benn famille attaqué ma ñu ne ñoom seen papa moo moomoon terrain bi ma tabax parce que seen papa dafa gaañu bi ñuy xool euh, si bagage bi si lañ gis kayitu papier bi kayitu kii bi kër gi ñu topp ma justice biñ demee justice ñoom yàlla def nag ñoom a géñe wutoon naa avocat avocat bi ak nag yax yàlla tudd mais avocat bi man mosuma taxaw procès amul benn procès bu ma tax du témoin témoin yi nga xam ne ñoo àndanoon man ci kër gi du kenn parce que avocat bi sama jëkkër moom moo ko jëloon moo ko fay léegi looloo tax man comme que sama jëkkër la dama ma nekk ci ginnaaw di ko di di xaar daal hmm. di xaar peut bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy atte avocat bi dina ma woo mais woowu ma aw ma lu dul benn jour chaque jour huissier bi di ma indi ay feuilles ay feuilles mu ñëw ni ma àtte nañ ba pare huissier bi wax ma loolu mu indi ma benn kayit bi ñoo xam ne dañoo wax ni dañuy toj sama kër loolu lañ ma indi. kër gi euh, noo ko amee kër la wala terrain la. maa terrain la ma jënd ko tabax ko. am naa ci kër gi maa ngi ko jëndee depuis 2004. ma tabax ko bi ma fi tabaxee bi ma ci duggeek léegi ça fait 18 ans. 2004 hmm. nga jëndee. Hmm. terrain bi 2004 kat laa jënd terrain. maa ko tabax waaw. fan la nekk ak kan jaay terrain bi. Euh, mi ngi nekk Rufisque baabu Salaam foofu la nekk ci wetu sit Sëñ Mansour. Hmm. kan moo la jaay terrain boobu. benn waaye bu ñu naan celo bu ñuy naan celo jara waaw. moom ah, ki la jaay moom démb dama laaj ñu ne ma gëfa gaañu démb dañ ñu ma gaañu. mu dem naa parce que dañ ma wax il faut ma dem si moom ma dem ñu ne gaañu na. mais biñ ma ñii ñëwee man demoon naa plainte ko bi ma ko plainte bi ñu demee dafa ni man terrain bi maa moom maa ko ko loolu la wax ñooñu policiers yi mais policiers yi ni nañ jàpp nañ ko parce que bi ma ñëwee fekk jàpp nañ ko mais amatuma xamatuma si dara mm-hmm. ba léegi xanaa moom moom terrain bi bi mu la ko bi mu lay jaay terrain bi xanaa moomu ko woon. parce que moom bi may jaay terrain bi moom jaay na ñeneen ak ñeneen foofu bi may jaay pour man terrain bi moo ko moom parce que comme que police jàpp na ko si rek kon problème daal. waaw hmm. ah. kon yow mun nañoo jàpp ne terrain bi ñu la jaay ki la ko jaay moomu ko. waaw famille bi nga xamante ne moom moo lay topp tey ci mbirum terrain bi moo moom terrain boobu wala seen papa. waaw seen papa moo ko moom. Hmm. parce que bi ma demee ba xool seen tur papa la fekk foofu. ma demee ma xool kii bi. kon bu ñu mënee wax ci mbirum terrain bi ñoom ñoo nekk ci dëgg. oui. Hmm. yaa ngi doon wax sànq léegi nii euh, jëloon nga wala sa jëkkër jëloon na avoca pour mu taxaw leen ci mbir mi waaye avocat boobu noonu daanaka mosoo leen taxaw ak moom ci li nga xamante ne moo di yoon wala mosu leen euh, gunge ci li nga xamante ne moo di mbirum yoon. Euh. loolu nu mu demee. man avoca bi ak nag yax yàlla surtout. ak na yahya man xamoko ko sama jëkkeer mom lañ ko booleel ben rakam buñ nan alhaj sar mo ko boole won léegi man ñun liñu yep nekk yépp yépp yépp ben yoon la ma sa wax sama jëkkeer ñi ngi ñi ngi def procès te boobu sama jëkkeer bi mu ne ma ñi ngi mu ne sama jëkkeer bi ñi ngi ni taxaw di atté ci tribunal la woy sa jëkkeer ne ko ñu ngi. ñi ngi di wax sama sama jëkkeer bi mi ngi garage après sama jëkkër bi bu ñëw wax ma ko mu ne waa kii bu ñuy àttee du ko du ñu woo ñun ñu dem taxaw depuis boobu sama jëkkër xamul si dara. yéen tamit mosu leen yónnee benn convocation pour. bu leen di wane ne tey mm. convoqué nañ leen tribunal. pour non mosuma gis convocation. lu dul aw ma lu dul huissier bi ñëw ni ma gañe nañ ñooñu gañe. bi ñu leen bi ñu àttee mbir mi ba ñu gañe leen ci. Mm-hmm. kan moo leen ko yëgal avocat bi moo leen woo wala huissier bi mooy indi kayit bi leen wane da ngeen war a génn ci kër gi. huissier bi moo ma moo ma ko xamal. xanaa avocat bi fayoo ko. anke sama jëkkër fay na ko. gisante gisante ngeen yow avocat bi. benn yoon laa ko mas a gis benn yoon laa ko mas a gis. wala am na leneen lu dox seen diggante ak avocat bi lu ñu xamul. non non man xaw ko sax avocat bi vraiment man xaw ko sama jëkkër bu ko jëloo xaw ko sax. sa jëkkër moom tamit nan la nan la dundee mbir mi. daf ko bett mu jaaxal ko parce que avocat boobu dekkul avocat bu ndaw dossier bi nu mu ko ni mu ko defee nii dafa def lu ko neex. waaw hmm. ah, man man xam naa loolu parce que foofu noonu nekkul titre foncier nekkul bàyyi domaine national domaine national. terrain bi fu mu nekk domaine nationale domaine national tabax naa ko ay at ñuy soog a ñëw. man coiffeuse la balaa ma am 1000 francs dama dem taxaw ba sonn ma bokk samay natt ma ma dugg ci banque bi su ma jëlee pre su desee trois mois ma solde ko jëlaat beneen prêt ba ma tabax sama kër ba ma tabax sama kër soo ñëwee soo gisee kër gi di nga xam ne kër gi ay millions ñoo si nekk. alors terrain bi yaa ngi koy jënd depuis. 2004 nga tabax ko. ci ci ban année euh, lañ la wax exactement wala ci ban année la problème yi commencé maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ne ñoom ñoo moom terrain bi kañ lañ commencé ñëw euh, ci di réclamer li nga xamante ne moo di terrain bi. ma amee foofu 10 ans lañ soog a ñëw bi ma amee 10 ans soog ñëw foofu. léegi jamono ji ñu toll ñoom gàññi lañ la ci ci ci yoon. léegi dañuy wax ni naa génn lañu ñu toj sama kër gi loolu lañ ma wax. lan moo wax loolu yoon moo wax nga génn yoon moo wax loolu parce que parce que huissier bi euh, kii boobu la may indi kayit bu mel kayit boobu la may indi. alors euh, yaa ngi doon wax ne euh, bi bi bi bi yoon waxee loolu walla avant loolu. Mhm. jotoon nga def ay démarches pour jéem a négocier ak moom famille bi nga xamante moom moom. waa dem na lu ëpp cinq délégation dem na fa. imam ñaari chef de quartier ku nekk ñëw na fa parce que man. yàlla dafa def di nitu nit ñi laa bëri naa connaissance ku bañ naa ko dama nëbb ko parce que xam naa ni su ma ko nëbbul dina gis lu dina gis nit yu bëri foofu si moom mm. même nii ni ko nit ñi yëgee nit ñi dañuy dem tout le temps si moom kër gi góor sax jooy na bu ñu ñëwee toog bu ñu ma xoolee dañuy jooy suñu waa koñ keroog ñoom ñëpp dañoo dañoo ñëw ndey xadi ni tax ñu ko ñu génn taxaw fii mais man maa bëggul fitna bëgguma fitna. kañ nga commencé négociation yi bi yoon jëlee dogal wala avant yow bi nga xamee ne euh, boo leen demee ci yoon ñoom ñoom am ñoom ñooy am euh, dëgg sa kaw ci nga commencé def démarche yi maanaam négociation yi wala bi bi yoon dogalee ba pare nga commencé def négociation. déedéet ñoom masuñu nangu ñu def ñu ñu du ñu nangu bëgguñu woon sa ñoo xam fi ñu dëkk ñoom mais benn jour la yàlla def. ma woo femme bi ni dañuy ñëw mu accepté mm-hmm. loolu laa xamee foofu fi ñu dëkk ñu ngi dëkk géejuwaay ñu ngi dëkk géejuwaay ma topp leen boobu ba léegi maa ngi leen di wax bi ma njëkkee gi benn paa moo njëkkoon di di topp dossier bi paa boobu bi bu njëkkee jàkkaar ma lu ma wax daf li ma kër googu la ñuy jël mm-hmm. ma ne ko li ma fa def nag mun ma xanaa ñu toj ko ma ne ko ñu toj ko ma ne ko pantere sa ku ko tabax doo wax lool ñu toj ko ma wax ko lool mu ne ah, dañ koy jël de wax ma lool moom am na femme bi am na am na kii goro policier la moom tamit dafa jàkkaarloo ne bul mës xalaat ñu jo ñu wacce la kër gi loolu la ma wax. Hmm. donc euh, yónnee nga fa ay délégation délégation. Hmm. ba tey ñoom nanguwuñu yow lan nga ne ci maanaam négocier lan nga bëggoon négocier ak ñoom dangay nga bëgg ñu bàyyi la kër gi nga fay leen xaalis wala wala. man dama leen tegal te kayitu terrain benn dama am beneen terrain ma tegal leen kayit bi ni leen dinaa fay seen avocat yi ngeen yi ngeen kii ak si huissier yi ak huissier bi ma tegal leen xaalis loolu laa leen wax mais bi ma ko waxee euh, doomu paa bi daf ma wax ni. waaw tëj tëjal kër gi rek ñoo jox ñu caab bi après ñu dem négocier ji police mu wooy euh, tantam bi mi moom fi mu nekk bi ngi Casamance mu woo ko mu ne ko foofu ak ton bu mu waxee foofu lañ foofu lañu fekk si fi ngay liggéeyee wax ko sama euh, jarbaat jëkkër bi ma àndaloon daay ni ko man maa wax sama ñoom nijaay ñu ñëw fii ñu fekk fi sa sa kii bi sa doom bi ñu waxtaan ak mu ne déedéet moom daal na tëj kër gi rek jox ñu caab bi après ñu dem ñu dem ñu négocier kër gi man maa ko tabax di ko tabax di wut prêt di jël prêt ba mu tax ak sama doom yi fi mu nekk nii ay xale lañu kenn amu ci liggéey man maay liggéey ak seen papa kon tey jii tey man su ma génnee sama kër gi nu nu may def ak sama étude xale yi ñu war a jàng. instant bi ci nawet bi ñoom suñu génnee toj sama kër na laay def bi may tabax boobu maa ngi ak sama doole mais instant bi nekkatuma coiffeuse bi ma nekkoon téyër laa maa ngi dama voile bi moo tax ma dem ma dem nekk téyër léegi nag man daf ma jaaxal daal di daf ma jaaxal man mm-hmm. daf jaaxal lan nga jàpp ne loolu moo tax parce que yow li nga leen wax xel mun na kaa nangu maanaam ñu ngeen négocier bu jubóo mais ñoom dañ la ne nga génn kër gi laata ngeen commencé. Euh, négociation waaw loolu la ñuy wax nga def ne loolu moo lakkatu si si ginnaaw seen démarche bi dañu la bëgg génne ci kër gi. dugg sama kër loolu la ñu bëgg dañoo bëgg génne ma dugg. ñoom ñu dugg sa kër. waaw la ñu bëgg xaw ma nag fu ñu ko teg mais intention boobu lañu jël. mais man gëm naa yàlla. benn toqrangooj du ma ko du ma ko toqal parce que damay kon ni may weddi yàlla du ko parce que def vingt huit ans la ma yàlla may kër vingt huit su ma toqalee rangooj duma ma gor parce que defalu ma yàlla li tax bu jox ma ko loolu laa wax carrément jàkkaarloo ñu wax leen lan moo tax ñu bañ beneen terrain bi nga leen proposé dafa dafa xaw a sori walla terrain bi euh, lan lan moo tax mënuñoo accepter terrain d' autant plus que da nga leen da nga leen bëgg a jox terrain boobu noonu tegal leen si xaalis bi nga xamante moom lañ koy mën a viabiliser. mais xaw ma xaw ma lan moo tax ñu bañ ko xaw ma peut-être xaw ma daal yàlla rek xam xaw ma lan moo nekk si seen bopp fu terrain bi fu mu nekk dafay inondé walla non parce que fi mu nekk gorom la te gorom foofu suuf bi dafa baax moo gën a baax suuf ñun fi ñu nekkee parce que man fi ma dëkk instant bi. bu même su ma ko démolir boo am dafay napp doo bi dafa jege soo amul xaalis doo ko tabax loolu moom j'en suis sûr. alors def nga négocier yone nga délégation pour ñu négocier hmm. euh, yow boo naree génne fofu ci kër gi kër gi hmm. dañ koy dañ koy toj. ah euh, kon euh, jamono ji ñu toll fan fan fan ngeen toll. yo ginaaw yoon dogal na ba pare yow nan nga fas def da nga fas genn génn kër gi bàyyi leen ak moom wala da nga bëgg continuer négocier man dama bëgg négocier parce que sama kër ay millions laa ci def ay millions laa ci def soo ñëwee ba nga taxaw nga xool ci kër gi di nga xam ni nit nit nit waru am xol xol kër gog sa diko ko toj nu ma liggéey xale ba ma mag yëpp mi ngi ci kër gog sen avocat bi moom euh, nan ngeen fas yéene doxal ak moom. avocat bi ah avocat bi dama koy bàyyee yàlla moo xam lan moo tax mu def loolu. avocat bi daa xamante ak ak waa kër gi. xamuma xamuma xamuma. wala da ngaa jot ne am na xëy na am na fu mu jaar ak ñi ñi ñi lay bëgg a génne ci kër gi ba tax na nag moom du leen yëgal dara wala du leen xamal lan euh, décision yi nga xamante ñoom ñoo tukkee ci justice. ah xamuma. Ya fi mu nekk xam ma yàlla rek moo xam fi mu lan moo nek ci ginnaaw loolu wallaay xaw ko jël naa lépp delloo ko yàlla xam ma ma vraiment. est-ce que jéemoon ngeen beneen avocat pour mu remplacer que déedéet man bi gagné ba ban parce que ban dossier yi dama koy dama koy yóbbu woon naa ko lu man ñetti avocat hmm. kooko wan mu la kii kii liggéeyul dossier dara ba pare def ay recours def ay recours def ñu jël bloqué ñu ñun mënuñu am benn sens pour génn ci l'or parce que domaine national yow nga tabax ñu yow toj ko c'est pas du tout normal parce que Sénégal la kon ñoom. da nga ne avocat bi daf leen bloqué ba mënatoo leen am benen voie de recours ci nan leen bloqué. parce que dossier bi ko ko tim day wax ni mënatuñ def benn recours parce que moom def na recours yëpp la ñuy wax. Hmm. te ci recours yëpp dañ leen yow lañ daan. yëkkur loo di xamul doo mën a défendre sa bopp te moom duñu wax xaw ma lan la liggéey foofu xaw ma daal jaaxal na ma daal parce que dañuy kooko war mun a ama possibilité pour génn fi loolu lañ wax kooko war loolu lay wax xaw lan moo tax mu def daan man yàlla rek xam xaw lu tax ah, ñoom bañ nañu négociation bi mm-hmm. fële avocat bi daanaka euh, voie de recours yi usé na ko. Mhm. te amu ci benn géndukul maanaam gañëw si euh, dara. donc situation bi fu mu nekk nii euh, takk tembe na ci ci seen ci seen côté. Mhm. lan nga jàpp ne loolu mooy euh, sa dernier espoir ci ci mbir yi. xanaa di ñaan rek di ñaan autorité yi nekk Sénégal yëpp di ñaan autorité Tëngéej yi parce que laa dëkk te. li ma diine wax ma dundee noonu laa dundee ak samay samay ñi ma dëkkal ku ma ku ma mën a jàppale dinaa la jàppale nga am liggéey ku ma mën a muy xale di mag di jigéen parce que yàlla def na am naa xam-xam bu nga xam ni bu ma dinaa mën a dimbali nit mu am liggéey mu am métier yàlla defal na ma loolu waaw lu ma diine wax ma def ko lépp def naa ko dundee naa ko ak sama ak sama dëkkandoo moo tax Lini manchi maa ci président président de la république du Faye maa koy interpellé mangi interpellé euh, premier ministre Sonko Mangi ngi interpellé bépp nit bu ma mën rek ta yalla rek tax mang koy mang